di leen ndokkale it nag ci weer wu tedd wi nga xam ne moom lañu yàlla boole lépp loo xam ne nekk na ci ci yiw ak barke yal na ko yàlla sëmbërtal ci xeetu sallallahu alayhi wa sallam wépp euh, di ñaan it nag yàlla bu mu doon suñu mujj koor di sant bu baax di nuyu bu baax nag bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay fu ñu mën a tollu ku ci mel ni sama xaritu bopp Katim ture commerçant ci marché Parcelles Assainies unité 17 di ci sargal bu baax it nag sama jigéenu bopp soxna Ngoone Gomis ca France ak doomam euh, Amala Diaby ak Sidi Mouhamed Diaby ak sama jigéenu bopp soxna Nafisatu Gomis ñu ngi koy ziar bu baax di ndokkale bokki julli yëpp mbokk yi tey nag ñu indil leen ci suñu waxtaan loo xam ne bu ñu ko doon seet ci lislaam lu ko ëpp doole amul ndax bii yàlla bëggee taxawal sunu diine ji mooy première ponk bi nga xam ne moom la jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko respecté respecté nga léppi diine ji waaye ku ko bàyyi it bàyyi nga léppi diine ji moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alsalaatu imaadu diini man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon nañu julli mooy fondement l'islam su julli baaxee beneen jaamu yàlla boo ci teg mu dem waaye ku bàyyi julli màbb nga ponk l'islam yépp parce que julli rek bu ñu ko waxee dafa symboliser mbooleem ay baadaat yi parce que kiy julli wax nañ ne am na yoolu kuy tawaaf ndax mi ngi dëgmal kaaba ga dañu wax ni kiy julli am na yoolu ku woor parce que kuy julli du lekk du naan dañu wax ni kuy julli danga nga tudd baati seede wax ni it kuy julli da nga génne azaka parce que physique bi ngay def ci julli gi azaka la ci sa azaka la ci sa yaram ah, julli googu nag mu bokk ci musiba yi gën a garaaw te rëy mooy koo xam ne danga ko sànq te tey ko musiba la moo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni gannaaw bi yàlla waxe ca alquran ne inna salaata tanha anil fahsaai wal munkar jullikat na ngeen yëg ne dana tere def nit ki lu bon mbaa lu ñu sib ci la yonent bi sallallahu alayhi wa waxe ne man lam yamnaahu salaatuhu anil fahsaai wal munkar fa laysa bi musallin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne koo xam ne julli gi muy julli terewu koo def lu bon terewu koo wax lu bon day sëgg ak siggi rekk waaye amul ca julli gi dara julli nag doon loo xam ne yàlla bi mu ko bëggee jox sallallahu alayhi wa sallam mën nañ wax ne xeetu jaamu yàlla yépp dafa fekk yonent bi ci suuf ba mu des julli koor daf ko fekk ci suuf aj màkk daf ko fekk ci suuf azaka daf ko fekk ci suuf waaye julli moom yàlla dafa yebal sayyidina jibril alayhi salaam mu ànd ak contingent u malaayika yu bari ñu jël si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàppe ca zamzam toxaloo fa dem ca baytul muqaddas jiite fa yonent yépp julleem gu réy googa def fa ak ñoom discours ba mu fa def saafonte ak ñoom jibril gëdd ak moom wuti asamaan bi ñu demee ba egg sidratul muntaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gees jibril ne ko afi haadal makaan yatrukul xalila xalilahu ndax ci place bu wéetee ni dawee ni yaram xalis xarit xarit néegu faa bàyyi xaritam sayidina jibril alayhi salaam tontu ko ne ko wa ma minna illa lahu maqaamun ñun kenn ku nekk dafa am fuñ la rëddal limite ne la fii nga war a yem te place bii ma la indi kenn musu fee jàll ku dul yow su ma jéggee fi leeri sama borom dana ma lakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne sax ne laaj na jibril ne ko loo bëgg ma jottalal la ko sa borom jibril ne ko lenn rek laa bëgg nga wax ko sama boroom mooy bu yowmal xiyaamee ba siraat di rëng-rëngi nga ñaanal ma sama boroom mu may ma ma teg sama laafu ndeyjoor wi sa xeet yépp jaar ci dugg aljanna ci kaw siraat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn aquarium xar mu dugg ci wuti sunu borom subhanahu wa taala bi mu eggee ci place booba yàlla sànni ca xel ma ndax place ku fa dem danga nuyoo yonent bi yàlla sànni ca xel ma ay baat muy ataxiyaatu lillaahi ba mu jeex yàlla tontu ko la mu ko tontu ne ko assalaamu aleyka ayyuha nabiyu ba mu jeex malaayika ya fa teewoon ne yóbbaale leen ñu géew assalaamu aleyna ba boolewaale ñu ci sax ñun waa suuf te fekkewuñ jataay ba yàlla ne ko suñu nuyoo bi passage bi ci jaar yóbbaale ko boo demee ku am ak man audience ba noppi bu koy tëj na ko tëjee lii moo tax taaya ku julli ba noppi moom ngay tëjee sa julli yàlla yëkkati juróom fukki julli jox ko sallallahu alayhi wa sallam bi muy wàññeeku ba yegsi ci yonent yàlla Moussa yonent yàlla musaa ne ko waññeekul boo demee nga wax ak sa borom sama xeet ñoo gënoon gudd fan ñoo gënoon a wér ñoo gënoon a dëgër te julli yiñ leen joxoon sax pour ñu matal ko jafe-jafe la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam mu wàññeeku di wàññilu ba julli ga des juróomi julli yàlla ne ko demal juróomi julli yooyu képp ku ko taxawal am nga yoolu juróom fukki julli yàlla rek a baax mbokk yi moo tax julli ëpp naa sàggane ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xabara bi ci kaw ak bi ci suuf gisu fi genn jaamu yàlla gu gën a foor julli guñ ko fiy defal parce que boo demee ca kaw da nga fa fekk malaayika yoo xam ne am na koo xam ne ba mu taxawee ba léegi toogul am na koo xam ne bi mu rukkoonee ba léegi su euh, siggiwul am na koo xam ne bi mu sujjootee ba léegi siggiwul am na koo xam ne bi mu toogee ba léegi yokkatul kon jaamu yàlla googu ñuy def am na ci malaayika yooyu sax wax nañ ne dañuy puukarewu ci yeneen malaayika yi ndax jaamu yàlla ga ñuy def na mu selle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina aliyin wax ni dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xam ne danga nga bàyyi julli te tey ko amuloo benn ngant yow yàlla nga bind sa tur ca kaw ne kii de génn na ci yërmande yàlla te man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sori naa ko kon yal na ci yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci abi hurayra bi nga xam ne dem na ba ci mujj jamonoom jibril alayhi salaam daf ko ñëwal ne ko jàngal yonent bi ne ko lu may jàng mu jàngal ko aaya ja fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabaau sahawaata fa sawfa yalqawna gayyan dana am ñu wuutu ñu la wuutu sa gannaaw bu ñu egsee danañu sànq julli ngir seen bànneexu bakkan waaye ñoo ñooñu yàllaa ngi leen di xaare sawara wu ñuy wax xay nañ ci yàlla musal bi jibril waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy ne ko ndax jibril da ngaa bëgg a wax ne sama xeet wi ñi ma fiy wuutu dana ci am ñoo xam ne dañuy bàyyi julli jibril ne ko waaw jamono ngi ñëw sa xeet wi danañu dem ba sànq julli ngir seen bànneexu bakkan danañu dem ba wut dërëm moo leen di gën a respecté julli danañu dem ba topp seen bànneexi bakkan ci yoo xam ne teguñu ko fenn àdduna dong leen ko euh, moo leen ci xiir kon mbokk yi lim ciy mën a déggee mooy nañu wattandiku julli ndax kat yàlla waxoon na ko ci alquran ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi xaanitin euh, mbokk yi bi yonent bi waxee loolu sallallahu alayhi wa sallam jibril ne ko ñooñu laa yamlikuuna alshafaata illa man ittaqada inda arrahmani ahdan mu ne ko ahd bi nag mooy salawaatul xams jibril ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ñu kenn mun leen a ramm lu dul ku ci am ak yàlla pacte boo xam ne respecté nga pacte bi pacte bi mooy lan mooy julli juróom nangu ko taxawal euh, mbokk yi pacte bi ñuy rammoo nit nag mooy julli juróom yooyu day fekk nga daan ci nab na bi di góorgóorlu donte da ngaa yéexe waxtu wi waaye su fekkente ne da nga ko bàyyi existé loo ko taxawaloo ko defoo ci lenn su boobaa bokkuloo ca ramm ma parce que nag amut genn jaamu yàlla gu yàlla farataal ci kaw jaam ñi gu mu gën a sopp julli juróom loolu dafa jar ñu xam ko te mbokk yi léegi sànq julli bari na torop nañu respecté julli ah mbokk yi yàlla day sunu borom bi subhaanahu wa taala yonent bi jàngaloon nañu ne awalu maa yuxaasabu bihi al abdu min amalihi yowma alqiyaama alsalaat fa in saluhat faqad aflaxa wa anjaa wa in xasirat faqad faqad xaaba wa in wa in naqasa faqad xaaba wa xasira yonent bi sallallahu alayhi wa nee na li yàlla di njëkk rek la ci digganteem ak jaamam bu egse yowmal xiyaam julli lay doon su fekkee julli baax na mbokk yi sa lépp dana baax waaye su julli manqué mbokk yi sa dara baaxul loo fa indi duñ ko xool ah, dañuy wax ne nag aéroport kenn du fa jaar te yoruloo passeport mën ngaa ñàkk am visa am passeport mu doon diplomate wala mu doon beneen nga ak suñu toléré la ba nga jàll waaye boo amul passeport mbokk yi sa jaar aéroport du yomb kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak loolu moo doon seen jataay tey ci sukran wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu